yàlla dafa def man tey lii daf ma dab ci wàllu gis-gis te am na ñoo xam dañ ko judduwaale tey bañ demee ba toog manuma dab maanaam deux mille neuf la ma dab waaw man ma newoon ci wàllu ouvrier ouvrage maçon di liggéey waaw liggéey dem Mauritanie ko ñëw yàlla dafa def man bi may liggéey maa ngi liggéey ci maçon ci benn village bu ñu naan Tawas ci àll Mauritanie bi bi may liggéey yàlla def am lu ma dugg foofu daaru ngelaw ma daanu ci diggante benn miir ak foos yàlla def sutura mooy dund ba heure bi yàlla ci lu wér côté boobu yàlla def doy mu jógee fu mu ñibbisi fii yàgg nañu wax INEFJA mais mosu fa bëgg a dem parce que benn maam invité ma ma dem bi ma demee yàlla def maam ñoo fekk ñu gën am lu ñu def ci man maam daan yow nga toog daan gis toog ba si yàgg gisatoo nga dem ba nekk ñi gisul da nga gën a delloo siwaat bi ma demee foofu tamit am lu ma yaakaar ne tey ne moo génnee fii xëy na au moins naa am lu ma jàpp ndax tey supposons boo xoolee tey boo jógee maam ci bërëb dem ci bërëb pour liggéey koñ ba nga ne ñoo njëkk xool ni am na fu mu ne bu génnee xëy na am na ci nu muy jëfandikoo nga génn ñëw togaat anil zéro te boobu ba léegi bañ génnee dañuy wax suñu diplôme yëkkati doon dem ñu génne INEFSA ci formation douzième formation lañ génnee man maa ngi def brosserie maanaam suñu brosserie mooy comme si que ñi liggéey ay ba bale station yi ak bale karo yi ak bale taxaw ak bale kii yu boulanger liggéey ak ay brosse à jean yëpp dañ koy liggéey am na beneen section boo xam tissage la mooy def wàll ay moquette serpère am bee xam télécom la mooy wàllu télécommunication mais lépp noonu la ñëlee yëpp ay silmaxa koy def nekkuñu dara day génne mel ni jaarul leen daal laa benn diplôme laa xam ne am nañ ko fa muy connaissance bi nii tey mooy moom lañ moom laa jàppee diplôme mooy xam non bi ma génne yàlla def na ndax koo gis ku ne am nay mbokk mais kuy wax ci da ngay wax ci mbool ci mbooloo ngay wax yàlla def na am na ñoo xam ne seen i côté mbokk ñu leen jàppale am na ñoo xam ne seen côté mbokk te benn côté nit ki mënoo chaque jour nga ko say soxla man début après demoon naa benn instant di jënd ay portemon ak ay kéew yooyu di ko jaayaat mais am na loo xam ne mun du lu wéy mun a dem mais ci kaw GIE bi sax tey bu ñu soxla bu ñu mën a jàppale jox ñu loo xam ne comme si ñu mën di liggéey pour su mën a suqali maanaam li tax li tax GIE bi dem waaw.